Ah, ah mais léegi nañ ko wàññi. nañ ko wàññi si mbirum politique si mbiru mbiru yu ndaw ndawaan yi quoi. ok yooyu laa ay yaa wax lii waxoo lii ba nga. Hmm? nañ ko téye dem di jënd ci mbir mi bu ah, moom lu baax la. d'accord euh, a jàpp nañ ko si ni dañ koy tere. nañ ko topp ba mu leer ndax nee naa la ñu bëri nekk si kaso bi loolu leen fa dugal. Hmm. ay dix mille francs ay vingt ñu dugal la si kaso bi fàttal la

xool ba xam euh, fu mbir yi di mujj mm-hmm. waaye daal lu ci mën a doon daal réew mi moom soxla nañ yëf yi leer mm-hmm. ama démb rek euh, bi ñuy wax ba waxu euh, phobie mm-hmm. dama asan partage waaw boolu ceeb boobu nag moo tax ma jàpp ne jabetam xanaa daa wér. waaw parce que dama. gis ah, nga <laughs> bu bees ak ceeb bu kii ceeb bu màggat laa xamul duñ boolu ceeb bu bees la sax du lekkee ceeb bees doo ko xamee. non dafa ñu may yàlla dégg. ceeb bees tàq rek. en tout cas yooyu yooyu day yooyu day naqari day naqari xol mm. bu ñu gisee ne pareen saa yi ñenn ñi defuñu lenn ñu ne raat ci kaso bi mm-hmm. ñeneen ñu gis ni kat ñii def nañ loo xamante ni bi lu ne weng la ba noppi ñu bàyyi leen ñuy dem yooyu day nekk loo xam ne pareen saa day naqari ci xol mm-hmm. kon boog li nga xamante ne bii daal. lii day daaneel économie réew. waaw baaxul. un milliard un milliard loolu xam nga ne musiba naar laay la. Mm. yal nañu yàlla musal ci yenn yi ñi nga xamante ne bii ñu ngi koy def. donc loolu baaxul ci am réew. donc nag nañ càmbar bi. càmbar bi. Thank you.